bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallam ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram wa man iqtada bi hadihi ila yawmi ddin sëriñ Abdou Lahad Bousso jërëjëf ci kàddu yi ak ci ubbi gu am solo gi nga ubbee jotaay bi ñuy tàmbale kàddu yi ci nuyoo ak ziyaar jëme ko ci mbooleem ñi ànd ak ñun jotaay bi ca teew fi ak ñi nga xam ne ñi nga ànd ak ñun ca teewuñ fi waaye nuyoo bi ak ziyaara bi ñu ciy jiital kilifa gu màgg di Cheikh Mouhamad Muntaka ñuy ñaan yàlla mu yàggal ko fi lool te may ko ak wér jàppandal ko ba naal yi mu def ci lu fare kaw njort te ànd kook mboolem taalib yi ñuy nuyu di ziare suñu mbokk yi nekk ci daayira muqaddamatul xidma di teg nuyoo beeg ziare bi ci loxo seen jëwriñ di sëriñ Afia Bousso ñuy rafetlu bu baax a baax seen taxawaay ren ak lu ko jiitu di rafetlu seen taxawaay yi ñuy jël sa fulla ak dëggu lal ko saa bu ko waxtu wi laaje ci yenn xew-xew loolu it ñoo leen ci kañ di ko rafetlu bu baax ni nga ko waxee li ngeen sàkk woon ci ñun mooy ñu weccante ak xalaat ak yéen ci lu jëm ci yoreen wu baax ci képp ku jiite mbooloo muy ak yoreen yoreen wu baax la bonne gouvernance yoreen wu baax ci képp ku jiite mbooloo yoreen wu baax mooy lan ni nga ko waxee lan mooy màndarga lenn ci màndarga yi ñu ko mën a xàmmee bu amee lan la mën a jur ko ci njariñ ci tàmbali bi dañu wax ni doomu aadama ni ko yàlla binde munta dund moom rek da ko bind ci anam boo xamante ne faaw mu nekk ci biiri moroomam bu nekkee ci biiri moroomam it day jëflanteeg ñoom waaye ay soxlaam ak soxlaay ay moroomam léeg-léeg mu am ak wuute xalaatam ak xalaati ay moroomam léeg-léeg mu am ay wuute waaye ànd ak lépp ànd ak loolu lépp nag faaw mu am lu leen boole ci ay jubluwaay muy ay ahdaaf ay bëgg-bëgg ak i jubluwaay koo xam ne dañuy dox jëm fa te ñoom ñoo koy bokk la doonte nag dana am ay bëgg-bëgg ak i njariñ ak i xalaat yoo xam ne day wuute ci seen biir kon kenn mënta beru ba noppi ay aajoom du faj mënta nekk kon il faut que ñu nekk ci biir mbooloo mi bu nekkee ci biir mbooloo mi nag seen xeloo dana am léeg-léeg waaye dimbalante tamit faaw mu am ndax am na mbir yoo xam ne buñ dimbalante wut du sotti nosu faaw mu am bu amut yu bari du sotti il faut mu am lu ñuy tënk muy lu ñuy tudd ay xawaaniin wala ay loi ay tëral yi yoo xam dañ koy tëral dëppoo ci ñu ñëpp ñu maase tënku ci su dul loolu du sotti buñ àndee tamit di dem faaw mu am kuñ teg ci suñu kanam loolu su amut du sotti kon gis ngeen dundiinu doomu aadama dafa laaj ay taxawaay ak matuwaay ak nosu ak i tërëlin yoo xam ni mooy mën a tax ñu mën a taxawal ab société ci loolu la ñuy wax ne ni kon lan mooy yoreen wu baax ndegam njiit munta ñàkk njiit lu baax nag kon la ñuy bëgg mooy kan lan mooy ay màndargaam lan la mën a jeexital ci mbooloo njiit lu baax moom dañu wax ne rek mooy ki nga xamante ne dafa am ay melokaan ak i taxawaay yu koy ràññeele yu muy jëfandikoo ci wammat ñi mu jiite dafay am ay melokaan ak i man-man ak xam-xam ak i taxawaay yu mu ràññee koo yoo xam ne moo koy may mu mën a wammat ñi mu jiite ñu dox jëm ci lañ bokk te mënuñ koo séddoo muy al ahdaaf al mushtarak jubluwaay yi nga xam ne ñoo ko bokk te mënuñ koo séddoo ñu dox jëmandoo ca faawu kenn jiite kooku jiite nag war naa am ay melokaan yoo xamante ne moo koy may mu mën a wommat ñim jiite di jeexital ci ñoom di jeexital ci seeni jikko di leen def loo ñuy def di leen bàyyi loo ñuy bàyyi di leen woo ci ñuy dimbalante dimbalanteeg moom loolu su amee dañuy mën a jàpp ni kooku njiit la su mënee def loo mbooloo mi man leen a bàyyiloo di leen toogloo di leen jógloo di jeexital ci seeni jikko ak seeni doxin xamal ni kooku njiit la ndax ku amul yenn melokaan yi du ko man njiit lu am njiit lu jub nag doon lu ama am solo njiit it doon lu munta ñàkk dundinu doomu aadama dund nañ ci yenn yi lu munta ñàkk la ci ñaari anam ci ni ñu yàlla bindee rek faaw mu am kon darura ijtimaaya la nécessité la boo xamante ne société bi moo ko laaj ndax xam nga ni sunu borom dafa am juróomi mbir yoo xamante ni moom la moom la borom xam-xam yi di tudde al kulliyatul xams aw daruriyatul xams yoo xam ne dañ ko war a sàmm moo tax dund gi am njariñ yooyu mooy bakkan dund dundu doomu aadama ak dund rek ci boppam diine muy ñaar xel ñett aw askan ñeent deru doomu aadama yi ak seen alal boo ko boolee muy juróom yooyu ay mbir la yoo xam ne kenn mënu ko sàmmal boppam kenn nit rek mënu ko sàmmal boppam waaye faaw ñu boole suñuy doole boole suñuy xalaat teg kenn ci suñu kanam dox jëm ci di ko déggal di ko topp ñu dox jëm ci loolu kenn munta aar boppam ci jëmmam aar njabootam aar alalam sàmm ab deram ba noppi lépp di dox kenn nit rek mënut loolu ngir loolu am nag moo tax ñu naan faaw booloo am faaw njiit am kon dundin bi ci boppam moo ñu ko imposé darura ijtimaaya la te loolu day laaj nosu laajit dimbalante muy benn ñaareel ba matlabun diini yi diine ci boppam moo ko sàkku ci ñun moo ko sàkku ci doomu aadama mbooleem diine yi jóge asamaan yépp te lislaam mujj ci yépp maase nañ ci ni juróom yooyu ma tudd dañ leen a war a aar dañ leen a war a ñoŋal dañ leen a war a sàmm lislaam nag ndegam li ko tax a jóg mooy former benn société doomu aadama boo xamante ne ñi ko ñi ko séq dañuy jàppalante ci seen biir di dimbalante di tasaare jikko yu baax yi muy li ñu tudd ay xiyam lislaam loolu moo ko tax a jóg moo tax mu soññ mbooloo mi ci ñu tànn ku leen jiite kon da leen koo digal buñ ko tànnee ba noppi mu farataal ci ñoom ñu déggal ko topp ko loolu ci farata yi gën a ñor la sunu borom day wax ci biir alquran al karim ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum te leen topp yàlla topp yonente bi topp kilifa yi topp kilifa yi kon ñetti ndigal lu aju ci ñetti mbir topp yàlla topp yonente bi topp kilifa yi kilifa yooyu nag mën naa doon kilifa diine mën naa doon kilifa àdduna mën naa doon sax borom njaboot kon kilifteef fii dañ koy dégg déggin wu yaatu képp ku jiite mbooloo ñu jox la seen sañ-sañ jiital la ci seen kanam kilifa ga ci ñoom moo xam borom kër lañ koy tudde moo xam ilimaan ci jumaa ji ci jàkka ji lañ koy tudde moo xam ci jiite quartier bi lañ koy tudde moo xam ku jiite dëkk bi la moo xam ku jiite am réew moo xam ku jiite ay nit ñu bokk luñ jëm te bokkuñ ci benn dëkk buñ dëkk sax lu mel ni que tarixa kon ñoo ñëpp ay njiit lañ ba tax na nag lii nga xam ne danañ ko fi wax lépp ñoo ñëpp mën nañ cee gis seen bopp waaye dañuy jël ci bi gën a kawe rek muy ku jiite am réew ngir ñi ci suuf ñëpp mën cee gisaale seen bopp ku jiite ab région diwaan da ci dugg boo xam su préfet lañ koy tudde wala préfet lañ koy tudde wala gouverneur lañ koy tudde ñoom ñëpp dañ koy ñoom ñëpp da ci dugg ba ci sax ñi nga xamante ni dañ leen a jox ay sañ-sañ ngir nit ñi buñ wuutee ñu àtte leen muy àttekat yi ñoo ñit dañ ciy dugg kon dafa yaatu lool yàlla santaane nag ñu topp kilifa yi ci biir topp gi ñuy topp yàlla ak topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente bi alayhi salaatu wasalaam daal di waxaat ni bu ñetti nit génnoon ci yéen di dem ci barab di tukki buñ dem ci amuñ kuñ jiital ci seen kanam ñetti nit buñ génnoon di dem ci barab nañ tànn kenn mu doon jiit ba keroog ñuy dellu subaat laa yaxillu li talatatin li talatati nafarin yakunuuna fi fulatin illa ammaru axadahum alayhi kon dañuy tere mbooloo génn di ci tukki wala ñuy dem fenn te kenn nekkul responsable kenn ku ne yilif boppam kenn yilifut kenn kenn jiitewut kenn loolu dañ koy tere laa yaxillu loolu lu mat a xam la kon lislaam dafa bëgg ñu nosu mu dellu moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ni dee leen déggal di topp képp ku leen jiite doonte kuy di kuy nuru ku doya ku doya di sax la bu ngeen demee ba jiital ko rek ameel ngeen ko ak dégg ak topp alaykum bi sam'i wa taa'ati wa in ta'ammara alaykum abdun xabashi looloo tax nag lislaam dafay aar njiit da koo aar jël ay matuwaay yu mat sëkk ngir dooleel ko ndax it nag jiit la jiital ba noppi di teqtal loolu lay bañ moo tax da koo aar ba tax boroom xam-xam yi dañoo dëppoo ci ni njiit mooy ndigalam ci lu dul lu ko jar dëgg-dëgg loolu dafa xaraam ca bakkaar bu mag la li féeg mi ngi góorgóorlu jaar yoon bi mu war a jaar mooy ndigalam ci bakkaar yu ci bakkaar bu rëy rëy lay doon moom la boroom xam-xam yi di tudd alxuruju alal imaam mu teg ci daan yu mett yonente bi sax daal di dem bopp ba ne bu mbooloo àndee am njiit bennoo am ñu nekk ci jàmm képp ku beru ngir indi fitna bu ëllëgee sawara la jël kon loolu lu mat a xam la yàlla xaj ji jullit ñi ci biir alquran al karim ni leen dee leen moytandikoo wuuteeg ndigalu yonente bi alayhi salaatu wasalaam su ngeen ko defee kat bu ngeen wëttuwut fitna dana wàcc ci seen kaw wala mbugal mu tar falyaxdari alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim noonu mu ko waxee ci yonente bi bépp njiit bu mel ni mu war a melit képp ku wuuteeg ndigalam da ngay am bakkaar bu mag a mag boo wutul daanu yàlla dana la ci fekk kon lislaam dafa aar njiit sàmm ko ba noppi gànniñ ñi sant leen ñu déggal waaye ànd ak loolu lépp nag boyalu ko ñu di ko topp ci lépp dafa am boroom xam-xam yi li ñuy wax ni nit di su ko topp ci mooy yàlla saa bu jàddee yoon wi nag ñi ko nekk ci ginnaaw dañuy war a taxaw waaye saa bu dellu siwaatee ñu ànd ak moom la taata li maxluqin fi maasiyatillah kon képp ku wàcc yoon jaar ci ñal wi kenn waratu koo topp ak li ko lislaam di aar lépp nag waaye bépp njiit bu wàcc yoon kenn waratu koo topp loolu it lu mat a xam la bu doon ci suñ doxee nu jamono jii dañ naan charte ndey charte réew mi wala charte bi gën a kawe ci mboolem bi tënk nit ñi ci biir réew mi ci jiite réew mi su ci tënkootut kenn ameelatu ko ak topp waaye lu féeg mi ngi ciy tënku nit ñi dañ ko war a topp te képp ku jàdd dañ laa war a teg daan ndax da ngay indi fitna noonu it la amee ci ilimaan bi noonu la amee ci mboolem njiit yi tege ci yoon lan nag mooy màndargay njiit lu jub njiit lu jub njiit bu jubee dafay am ay tegtal ak i melokaan ak i taxawaay yu ñu koy xàmmee bari na mu ne su tudd yépp waaye am na yoo xam ne moom duñ ci jaar sax ndax lu lu leer la mooy ne njiit lu ne war naa am xam-xam war naa am man-man li ñuy tudde compétence tafaa war naa maandu war naa jub war naa doylu ak yeneen ak yeneen yooyu moom yu leer la ma am yenn yuñ juqate rek yoo xam ne dañ ciy bëgg a taxaw bi ci njëkk mooy njiit lu jub war naa am yëg-yëg ci warteef wiñ jàll ci aw loosam muy li ñuy tuddee responsabilité ak masuliya njiit lu jub lu nekk war naa am yëg-yëg yëg-yëg boobu moo koy mën a tax mu mu xam lan moo ko war ci njaboot gi mu jiite mooy tax mu xam diisaayu yan bi mooy tax it mu bàyyi xel ni ëllëg bu yomal xiyaamee faaw danañ càmbar ay mbiram ci sa responsabilité sa warteef lu mu gën a kawe lu mu gën a diis ci biir askan wi say jëf yu baax di gën di duun ci tiyaaba di gën di rëy waaye lu mu gën di diis say sa jubadi bàkkaar yi di gën di diis ku jiitewul kenn mën naa defandoo mel ni mbir moo ci jiite mbooloo mi lañuy am ci bàkkaar day wuute ndax bokkul ay responsabilité moo tax njiit loolu yëg-yëg boobu war na koo xam bu baax xam ni yëmatut ak ñëpp loolu su ko xasee ba xam buñ ko tànnee dana am yitte ju ko doy sëkk ci lu dul muy ndaje di mbumbaay di feetu di kontaan ndax njiit luñ tànn rek muy bëgg di cëppi cëppi di kontaan di feetu moo ki mbokkam xamal ni yëg-yëg ba des waaye bu amoon yëg-yëg dana tal leneen lu dut loolu moom ak ñi koy jàppale Seydina Omar ibnu Abdul Aziz sët la ci Seydina Omar ibnu Alxataab yàlla dafa dogaloon mu jiite woon jullit ñi ay jamono ba ñenn ñi sax di ko tudde xaamisul xulafaa rachidin bis biñ ko tànnee mu nekk njiital jullit ñi moom laataa loolu ku sawaroon la ku civilisé la woon di sañse di dund dund ak doomu buur daal waaye nag ku baax la woon waaye bis biñ ko tànnee ci bis bi dafa daf ne man day rendi nañ ma ca paaka laalu ma rendi nañ ma ca paaka laalu ma res warte yi ñu teg ci sama loos lay diis bi ak métti bi rek da day moo ku ñu rendi rek a yam ci man daal di wax ak mbooloo mi wax ju am solo bokk na ca kàddu yi mu leen wax ñi leen inni lastu bi xayrin minkum yéen mbooloo mi na ngeen xam ne bis ni ko tey jiital ngeen ma de waaye taxul ma gën leen loolu na leer ci yéen ndax man leer na ci man jiital ngeen ma de waaye taxut ma gën leen waaye nag li am mooy sama warteef dafa gën a diis seen warteef bi ngeen ma falee sama warteef dafa gën a diis seen warteef waaye nag ku toppul yàlla kuñ mooy yàlla kenn du ko topp da leen a bëgg a wax ni le daal li feeg maa ngi ci yoon wi kon na ngeen ma topp su ma jàddee ci ñàll wi na ngeen ma baax daan ne ndax dégg ngeen li ma leen wax ñu ne ko waaw liggéey ba daal di tàmbali te bis booba la bàyyee sol yére yu cher te jamono booba solatul yére yu cher yére yu yamaay yoo xamante ni ka gën a néew doole ci askan wi dana ko mën a am moom la tàmbali di sol solatul sol solo lekk gi mu soppi ko bu baax a baax ndax yëg-yëg bi moo diis ci moom ndax am na melokaan yu muy mel askan wi duñ ko ca mën a roy duñ ca mën a ànd ak moom ca amaana danañ jéem a roy ci moom mu indi fitna mu soppi ak dundam ci anam bu yéeme la soppi dundam soxna si di nettali ni da koo fekk mu tëdd fi mu doon jullee geganoo loxo bi rongañ yi di rongo ñi di di génn maanaam muy jooy daal soxna si ni ko lu xew mu ne ko man day dañ maa fal may xalaat ci ki xiif te munta lekk ndax ñàkk di xalaat ci ki wéradi te munta faju di xalaat ci ki rafle te amut lum sol nekk ci sedd bi tàngoor wi taw bi ngelaw li di xalaat ci jirim bi fi waaye juróom jóge ci amut ku ko taxaw di xalaat soxna si ci borom këram bàyyi ko ci amut ku ko yor mu wéet moom kese wala moom ak njabootam may xalaat kiñ tooñ ca kàddoom ëg si wut ci man bañ man koo lijjanti di xalaat ñi nekk ci biir kaso yi ak ñi tumuraanke nekk ci biir dëkk bi te seen te jot ci wuñ ci man di xalaat ku màggat si te amut ku ko taxaw may xalaat borom njaboot ku jaboote te amut alal duñ leen yore ñii ñëpp ak ñu mel ni ñoom nekk ci barab yu wuute ci réew mi la sama xel dem te lépp man maay seen warte man maay seen ji ëllëg man la ko yàlla laaj te leer na ma ne bu alaaxira buñ koy layoo seen avocat mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax njaboot ak yonente bi la ca man maa ko wutu yonente bi alayhi salaatu wasalaam daan ne ko lii da lay xalaat moo tax may jooy kon kooku yëgoon na bu baax a baax a baax lan mooy warteef yu nekk ci aw loosam digganteem ak askan bi mu jiite te loolu nag doonu du tumbaanke ndax maamam Omar ibnul Xataab ba mu faloo moom it dafa wax ni ab am xar sax wala aw bëy wala ab gàtt bu fakkastaloo ba gaañ ci biir diiwaan yi ma yil fi lépp lu mu sori sori gëm naa ne bu alaaxira yàlla dana ma ko laaj ni ma lu tax defaroo woon yoon yi ba mala bi di ci fakkastalu bay gaañ kon kooku moom doomu aadama taxut ñuy wax kooku mooy maamam kon Omar ibn Abdul Aziz noonu la kiyee nguuram nag yàggut diir bu gàtt la mu yëkkati réew mi koom ma ba amatuñ kuñ jox asaka diggante bu gàtt la yor réew mi ñu dem tuuti asaka boo ko génnee doo gis koo ko jox mu indi ci soppat yi doy waar réew jullit yi avancé lool am doole lool ci diir bu gàtt nga xam ne kon yëg-yëg ak yoreen wu baax moo mën a jëmale kanam am réew kooku benn la ci kon am conscience bu wér ci li nga yàq ñaareel bi ci màndarga yi mooy njiit dafa war a am gis-gis bu sori am yitte ju kawe lu ama am solo la ci képp ku jiite mbooloo waaye jiite mbooloo ca sa gis-gis weesuwut sa takk ndeeru jëmm kooku taxut ñuy wax njiit boo soree gis-gis nag sori yitte yitte ju kawe mooy mën a tax nga ànd ak saw askan kenn dox dox bu sori lu lu waxtu bi gàtt gàtt boo leen jiitee rek da ngeen mën a dox dox bu sori yéwénal seen mbiri àdduna yéwénali seen mbiri àllaaxira sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu boo gisee li mu def ci dundam ànd ak xat-xat yépp fanweeri at yu tegal mu nekk ko ci loxo tubaab bi ànd ak loolu lépp ñu sot moom ak mbooloo mi koy jàppale muy taalibe yi ñu sottal ci lu toll ne liñ sottal yitte ju kawe moo ko waral waaye bu yitte kawe wutoon dara du sotti barab bi ñu nekk misaal la ci bu doon toon yitte ju kawe du am rawatina ci jamono jiñ ko dese woon jumaay njaareem jee bu doon toon yitte ju kawe du sotti rawatina ci jamono yañ ko dese woon ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon bu yitte kawee rek nit ki daanaka lu mënut am waaye bu ñàkkee yitte tuuti bët kooku du dem fenn da ngay dégg ñu naan réewum Sénégal bi muy am indépendance moo réew sàngam di tudd ay Corée di tudd ak ay Japon ñoo tolloo woon wala Sénégal sax rawoon leen te buñ xoolee ku nekk nii ay juróom fukki at wala nangami at ginnaaw bi ñooñu sax duñ suñuy nawle dem nañ bu yàgg yàgg yàgg loolu yitte ju kawe ak njiit yu baax moo ko waral ñun ñu nekk fi nekkoon ba léegi mu mel ne ginaar buñ tënk lu yàgg ba mu yàgg nga tekki ko te xamut ni tekki nga ko mu tëdd fi mu tëddoon rek jàpp ni jatan bi ñu fi loolu moo dal yenn réew yi kon yitte ju kawe am na solo lool ci mbooloo ñetteelu màndarga bi mooy maandu maandu nag lu mat a taxaw la ndax aw askan pénc mu am ak dal rek maandu da koo lal yonent bi yàlla subhanahu wa taala fonk bu mu fonk maandu moo tax mu jël ko def ko lenn ci ay meloom al aadi digle ko tamit jiital ko ci ay santaane yu baree bari digal digle ko te lënkaliwu kooku ngëm waaye nekkal doomu aadama rek boo nekkee doomu aadama rek daf laa digal nga maandu inna allaha yamuru inna allaha yamuru nnaasa bil adli wal ixsaan wa itaa dil qurba wal yataama wal masaakin yéen nit yépp sàkkuwu ko ci way gëm yi rek kuy nit rek yàlla da ko digal mu maan ak niveau boo mën a toll ci sa dund dangaa war a maanu maandu doon loo xam ne mënut a ñàkk ci dund gi mu am yoo xamante nag xëy na munu cee ñàkk ngir maandu am bi ci njëkk mooy ñu sàmmal doomu aadama yi seeni àq ak yee seeni yelleef ak seeni warteef ñu garanti doomu aadama yi mbooloo miy dund moo xam ñu cosaanoo ci biir réew mi la wala ñu fi cosaanut waaye dañ fay dëkk ñëw fi ngir ay yitte ñoo ñëpp kenn ku ci nekk am na àq ak yelleef waaye it am na warteef yu nekk ci aw loosam loolu njiit li da ko war a da ko war a sàmm di ko saytu bu baax a baax war a tënk boppam tënk ñi topp ci ginnaawam ci li leen boole ñoom ñëpp muy li ñuy tudde charte bu dee jullit ñi alquranul karim bu dee ci doxeenu réew yi mën nañu wax constitution njiit li da ca war a tënk boppam ba noppi tënk ko ci ndax buy waat dafay wax ni maa ngi waat ni danaa warmaal charte bi te danaa fexe ba nit ñi warmaal kon waat googu da ko war a sàmm tënku ci ci biir séddale gi muy séddale sas yi kenn ku ne la mu koy defloo ci liggéey bi ndax moom mënut a def lépp da caa war a jiital xam-xam man-man ak ak njub te bañ a xool aw askan ak luñ bokk ak luñ bokk buy séddale poste loolu moo war a jiitu ci yu mu war a bàyyi xel xam-xam bi man-man bi ak njub bi al ilmu wal kafaatu wal istiqaama su ko ci xoolut rek boo yeexee yeneen dana ci wàll yàq ñoo bokk gox buñ dëkk ñoo bokk tariqa ñoo bokk parti ñoo bokk lii ñoo bokk laa yooyu yëpp dafay doy waar réew mi ñun ñëpp a ko bokk kon bu ñuy joxee poste yooyu nañ seet ñi ko man seen xam-xam mate ko seen njub mate ko ñu dénk leen boobu benn ci yi sottal ak maandute am la beneen charte bi tax maandute am mooy kuñ dénk ndombal tànk bu nekk nga teel a def ci sa bopp bi ni danañ la laaj naka nga ko yoree al muhasaba mooy reddition de compte loolu da ko war a am ci réew mi mu mujj def ko nit ñi def ko ci seen xel koo mën a doon buñ la dénkee dara ñu laaj la noo ko yore ñëpp yam ci loolu bu amul maandu ba am alquran sax daf koo wax ni lu waay def ci lu baax wala safaan ba lu mu néew néew danañ ko ko laaj ëllëg bu alaxira waaye bu dee ci doxeenu askan wi waruñoo xaar sax alaxira ndax loolu mbir yàlla la foofu waaye fii ci àdduna da ko sëqoon ak i nawleem ñu am aw sas wuñ ko tog bi doon dénk ko ko ngir njariñu mbooloo mi mbooloo mi di ko fay dañ koo war a laaj loolu ñu ko dénkoon naka la ko yoree loolu bokk na ci li tax maandu am moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi yéen ñëpp sàmm ngeen te kenn ku ne danañ ko laaj bis bu yowmal xiyaamee lam doon sàmm naka la ko doon sàmme woon yónnente bi sax waxam moo gën a moo gën a yaatu ndax nit ki xam-xam bi ko yàlla jox kattan li ko yàlla jox doole alal di ko yàlla jox daraja ji ko yàlla jox yooyu yépp yàlla da ko ndénkaan la yàlla da ko koo aal bu ëllëgee dana ko laaj lenn lu nekk ci loolu naka la ko yoree woon xel mi ko yàlla joxoon muy ak xéewal naka la ko doon jëfandikoo kàttan li ko yàlla joxoon ba mu nekkee ndaw ci lan la ko def ak dundam ci lan la ko jeexal wërsëg wi fu mu ko jële ak fan la ko def yooyu sax moo gën a yaatu kon kullukum raain bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax jëmm ju nekk te la ko yàlla defal ci ay man-man ëllëg dana ko ko laaj ci naka la ko doon jëfandikoo rawatina nag bu ko bu ko toftalee mbooloo ci ginnaawam dana ko laaj jëmmi boppam yooyu lépp ba noppi laajaat ko ak mbooloo mi ak naka la leen yoree kon maandu loolu bokk na ci li koy li koy sottal tudd nañ ci ñaar mooy ñu garanti droit yi ak devoir yi xuquuq yi wal waajibaat ba noppi ñuy topp kenn ku nekk te lañ ko dénk di ko saytu di ko laaj lu mu ca def ak lu mu ca def ñetteel bi nag mooy am sago njiit bu amut sago mooy battu nafs njiit bu amut sago maandu du ko yomb bu amut sago maandu du ko yomb ndax xam nga nit moom dafa am ay yëg-yëg day bëgg di bañ di mer léeg-léeg sax muy iñaan léeg-léeg muy bëgg fayantoo léeg-léeg muy farfarlantoo léeg-léeg muy woote waaw askan léeg-léeg muy woote waa parti léeg-léeg muy woote woo yeneen gëm-gëm yooyu yëpp nag bu nit ki amut sago mën na koo yóbbe ci ñàkk maan muy jeng jëm ci kuréel di singili kuréel jeng jëm ci kuréel di singili kuréel loolu lépp ñàkk sago moo koy waral waaye boo xamee ni te ni maandu lañ la sant ci ñëpp kenn ku ci nekk waxul nga yamale ñëpp ndax yàlla yamalewul waaye nag na kenn ku ne am lim yayoo ci li ñëpp bokk Omar ibnul Xattaab daf doon dénk àttekat yi ni leen na ngeen moytandiku lépp luy nëxal seen xel lépp luy nëxal seen xel wa iyaakum wal xalam yokkat mer bëgg ak yooyu yëpp yëpp luy nëxal seen xel ba mën a sooxal liggéey bi dee leen ko moytandiku maanaam bu ngeen dee def seen liggéey dee leen ànd ak xel mu dal daal di leen wax ni leen fa inna alxaqa fi mawatini alxaqi yuazimu llahu bihi ajrahu yuxsinu bihi zikra dëgg kat nga wax ko ci barabam wax ko ci jamonoom yool bu rëy rëy la ci yàllay bindal boroom waaye nag da ko ciy fàggul sax way wu rafet ëllëg kon njiit li bu maandoo di doxal dëgg ci fi mu ko war a doxale ci waxtoom ci ñépp ci ni ko yàlla santaane yàlla da ko cay bindal siyaaba ju rëy rëy rëy ba noppi fàggal ko ci way wu rafet ëllëg njabootam siggi aw askanam siggi ñim jiite woon siggi ci seeni kanami nawle bu loolu amul nag yuur ak dox rek moo fay am wala génneen wu ñaaw ndax bu maandu amul rek tooñay am ñoom ñaar duñ amandoo ci benn waxtu bu tooñ amee maandu randu bu maandu ñëwee tooñ randu ca tooñ nag yàlla da koo da koo bañ ci boppam wa ma allahu yuridu zulman lil ibad yàlla ci boppam moo bañ tooñ daat ne xaraamal naa ko ci sama jëmm man yàlla du ma tooñ kenn xaraamal naa ko ci seen diggante bu kenn tooñ moroomam daat ciy teg jël ay matuwaay yu bari ngir maandu mën a am mu mel ne tooñ ak nangu tooñ ñaar yépp tooñ lañ man loolu laay wax dama naan tooñ ak nangu ku la tooñ te nga am ca pexe ñaar yépp tooñ ndax boo nangoo ñu lay boo nangoo ak tooñ mooy yaa ngi def luy saxal ak tooñ ci biir pénc bi kon ñu téeg yaa ngi ciy am pexe da ngaa war a bañ ak tooñaanga sudut loolu yàgg ciy tooñ yéen a yem kon tooñ ak nangu tooñ ñaar yépp tooñ la lislaam nag jël ay matuwaay ngir xeex tooñ matuwaay ya ca njëkk mooy ni dafa pop ki nga xamante ni dafay xeex tooñ dafa bañ ak tooñaanga di xeex ngir ak maandute yàlla dafa bu bu bu faatoo ca xeex booba yàlla daf koy yëkkati ci darajay shahid te bu doonu toon loolu am na nu muy demee faatu ordinaire lay nekk du nekk shahid te shahid ku ku ku ku faatu ci toolu toolu xare dafa am teraanga bi ko yàllay defal alaxira ba tax na sax teraanga ji jooju moo tax ci faatu ci daanu ci toolu xare diisu ko sang diisu ko jullee dañ koy denc noonu ak yéreem yooyu teraangay alaxira nag door a ñëw bu dee kii nga xam ne nag day xeex tooñ ci biir pénc mi bu faatoo ci xeex booba te yàlla taxoon ak ak yi yónnent bi tudd tax bu boobaa day am wàccuwaayu wàccuwaayu shahid donte nag moom danañ ko sang danañ ko jullee danañ ko denc ci barab bi yépp lu ñuy defal ab jullee waaye ca jëf ca jëf ja ca teraanga ja yàlla da koy wàcce wàccuwaay boobu kon yàlla mi ngi soññ nit ñi ci ñu bañ tooñaanga ñu xeex ñàkk maanu kem seen kemtu lay kattan yonent bi dafa wax ne képp ku ñu rey ngir bëggoon koo képp ku ñu rey ngir ci alalam wala bakkanam wala ci njabootam wala ci diineem kooku shahid la man qutila duuna maalihi fa huwa shahid wa man qutila duuna diinihi fa huwa shahid wa man qutila duuna ahlihi fa huwa shahid wa man qutila duuna nafsihi fa huwa shahid kon ku la bëgg a jaay doole ci sa jëmm wala ci sa alal wala ci sa njaboot wala ci sa diine nga lànk ba sa bakkan rot fa yàlla da lay yëkkati wàccuwaay ku daanu ci toolu xare loolu nag soññeel ci bañ ñàkk maandu injustice du ko weesu yàlla yemut ci loolu ci àdduna si dafa foog aw nit ñoo xamante ne dañ leen doon tuutal di leen not ñu nangu ko yàlla boole leen ak keleen doon ñoom ñaar keleen doon not ñëpp alag leen xaare wu ko sax alaxira te loolu alquran mën na ko nettali mooy firaw na nga xam ne moom alquran buy joxe ñàkk a maandu ak tooñaanga ak ak mbewte ci àdduna firaw na la ëpp lu muy indi ndax fam ca eggoon moom dafa yéeme yàlla lu mu wax daf na fastaxafa qawmahu fa ataaxuuhu daf leen a doyadal not leen ñoom it ñu nangu ko topp ko ca fa ataaxuuhu yàlla ne ñoom ñoo ñëpp moom may tooñ ak ñi ñi nangu ñu tooñ leen ñoom ñëpp nit ñu bon lañ innahum kaanu qawman fasiqin yàlla daal ne ba ma ca mbir ma sàttee nag ndax ñii dañoo yaafus ñu leen di takk saret di taxaw ci seen xet yi di leen doyadal ñu nangu ko bi ma ci mbir mi sàppee dama leen a alal falamma aasafuna falamma aasafuna intaqamna minhum fa aghraqnahum ajmain dama leen a labal ñoom ñëpp far benn yoon ndax ñi amatuñ ci njariñ ci àdduna fa jaalnahum salafan wa masalan lil axirin dama leen a jiital ñu dem sawara ñoom ñëpp ba noppi ma bëgg ba keroog saa di taxaw askan wu ci mën ñëwati bu xam seen histoire su ko defee ñu moytandiku wa masalan lil axirin kon askan bu bëgg yàlla alag la rek nanguwul ñu ñu not la buñ la notee rek bu sàppee yàlla da lay alag yàgg ka leen not ñoom ñëpp ngeen dund fitnay àdduna dund fitnay alaxira muy ñaareelu mbir muy wane ni maandu lislaam da koo da koo bëgg ñàkk maandu lislaam da koy xeex ci anam yu wuute yëmut ci loolu yàlla dañu nettali ay nit ñoo xam ne dañoo yaafusoon ci àdduna nangu noteel ca amoon ca pexe bu àllaaxiraa wala bu ñuy faatu waxante yi ñuy waxante ak malaaka yi yàlla daf ñu ko nettale xam nga yàlla moo fi nekkoon démb moo fi nekk tey moo fi nekkee ëllëg kon lay xewi ëllëg mën nañu ko nettali lan la ñuy nettali dafay wax ne am na ay nit ñoo xamante ni dañoo nangu tooñeel maanaam dañoo tooñ seen bopp bi leen malaaka yi di faat daf ne leen ci lu ngeen nekk ñu ne tontu daan ne ñun day dañoo néewoon doole dañoo néewoon doole su ko defee malaaka yi ñu leen waa ah néew doole suuf sa ngeen nekkoon foofa ñu néewal leen fa doole néewal leen fa doole ngeen nangu waaw ndax suuf dafa amutoon feneen ngeen mën faa dem bàyyi kay tooñ foofa du gisati fu mu tooñ ñu ne xiim yàlla ne ñooñu ñëpp sawara leen jëm inna alladina tawaffaahum almalaikatu zalimi anfusihim qaalu fiima kuntum ci lu ngeen nekkoon qaalu kunna mustadafina fi l ardi ñun de dañoo néewaloon doole ci kaw suuf yàlla ni leen ah waaw buñ leen malaaka yi ni leen waaw buñ leen néewalee doole ngeen bañ doole gi ngeen bañ néewal doole gi su ngeen ci ñàkkee pexe ba ñàkk ci pexe ngeen génn bàyyi ko fa xanaa bu gisatut kum tooñ ak kum not noteel jeex waaye yéen defu leen ko li mu leen fenn xan yaccaaral toog foofu yéen ak moom mi leen doon not yéen ñëpp sawar a ngeen jëm yàlla nag daal ne kenn rek moo ci mucc te mooy ki nga xam ne amut menn pexe amut pexem xeex noteel bi ci benn pexe amu ko ci te amut fu mu jëm kooku moom yàlla da koy jégg illa al mustadafina min alrijali wal nisaai wal wildaan jigéen ñi amut menn pexe wala góor ñi ngir seenu tëleeg seeni néew dooleeg seen màggat ak seen wéradeeg ak mboolem li mën a waral ak tële ci góor ñi ci jigéen ñi ak ci ndaw ñi ñooñu nga xam ne amuñ menn pexe moom amuñ fuñ demee buñ leen notee ñu muñ ko yàlla dana leen jéggal wa ulaika asa allahu an yafuwa anhum wa kana allahu afuwan ghafura kon gis nga askan bu bëgg yàlla alak ko rek na nangu noteel nit ni ko yàlla bindee bu jiitee moroom mi nitam buñ ko artuwut rek mën naa dem ba xelam fat muy dox doxeenu mbew waaye ñañ bëgg nag ñoo war a am ful lay bañ suñ ko bañut yàlla da leen di seetaan ñu dund fitna mu boole leen ñoom ak ki leen doon nag alag leen te loolu nag xanaa jër jërut kenn di fa di fa egg loolu it lu mat a lu mat a xam la kon bañ noteel lu yàlla lu yàlla sant doomu aadama yi beneen màndarga kon njiit lu baax taxawaay boobu la war a am ci ci ci maandu suw askanam beneen bi ñeenteel bi mooy waxtaan njiit lu baax lu nekk dafay diisoo ak ñoom jiite bu ko xelam rek doyee wala xelam xelu ay jege ñaaleem rek mooy mu ngi ci yoonu wàcc yoon mu ngi ci yoon mu ngi ci ñàll bi mu ngi ci ñàll bi ndax xel ci moroomi xelam lañuy xame ak rafetaayam waaye xel bu beroo rek day nuru lu rafet waaye boo ko dugalee ci ay moroomam ci ngay xam ndax xel mi jub na wala jubut rafet na rafetut baax na baaxut waaye bu beroo rek day jub xel du yàqoo ci bopp kon njiit dafa war a waxtaan di diisoo diisoo nag doon fonk bu am solo ci lislaam diisoo nag buñ koy wax da ngay diisoo ku mat a diisoo ca la ngay diisoog moom na ca am xam-xam ràññeeku te rafet ca xalaat waaye waxuñ lu ne nga diisoo ceeg ku ne boo dee wax ci mbiri diine laaj ko ñooñ diine boo dee wax ci mbiru mbay laaj ko ñuy yëngu ci mbay boo dee wax ci wàllu tabax laaj ko ñuy yëngu ci wàllu tabax boo dee wax wala ngay jëf ci wàllu wér-gi-yaram laaj ko ña cay yëngu mbir mu nekk ña cay yëngu ñoo ko gën a xam ñu dul ñoom su ko defee nga waxtaan ak ñoom bépp dogal bu njiit li war a jël ca muy lu soxal askan yépp na ci am xalaatu askan diisoo boobu nag jumtukaay yi ak defeen yi mën naa wuute waaye am gi moom lu munta ñàkk la naka lañ koy defee nag mën naa wuute ci jamono yi niñ wuutee ci barab yi niñ wuutee ci nit ñi niñ wuutee solo su ko yàlla jox moo tax mu tudd ko aw saar ci biir alquranul karim suuratu shura melal jullit ñi ni ñoom da ay nit lañ ñuy diisoo ci seen ci seeni mbir wa amruhum shura baynahum digal yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni na nga koy na ngay diisoog ñoom muy ndigal wa shaawirahum fil amr loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam musu koo caaxaan lépp lum daa def tam soxal mbooloo mépp da cay jël seen xalaat misaal mi ngi ciy joxe xare badar bi nga xamante ne moo mooy xare bi njëkk ci diggante jullit ñi ak ñi dul ay jullit te amoon ci weeru koor wi ba muy am barab ba fa fa fa yonente bi xalaatoon ne mooy barab bi ñu war a dal ñoom jullit ñi soldaaru jullit ñi foofu lañ war a dal bañ ko xelalee da koo soppi dem jël beneen barab te ba mu defee la ko mbooloo ma wax gis nañ ndimbalal yàlla daf leen a fekk ñu gañe xare bi noonu la doon def ci lépp di ci tàggat ñi ànd ak moom ñi ànd ak ñoom it mujj waxtaan nekk seen jikko biñ fi bàyyi ko abu bakrin radiallahu anhu nekk wuutu ko jiite jullit yi moom it ñaari at rek la jiite waaye def ko liggéey yu am solo waaye alquran tey jii alquran ji kaamil bi buñ ko buñ ko mënee am alquran ji nekk Sénégal ak ji nekk Pakistan ak ji nekk Arabie Saoudite ak ji nekk fépp ci àddina bi nekk benn ginnaaw yàlla ak coobareem Seydina Omar moo ko xelal Seydina Abu Bakr Seydina Abubakar moo yoroon kilifteefu jullit ñi waaye xelam daju ko woon Seydina Omar kalam daj ni alquran ji ne buñ ci defut liggéey buñ ci war a def bu wutul jamono dana ñëw ñu ami jafe-jafe mu dem ci moom xelal ko Seydina Abubakar ci tàmbali bi sax mi ngi ci doon am lu muy dengi dengi ndax ni ah yonente bi kat moom la yàlla yónni woon te defu ko ndax man kon war naa koo def Seydina Omar di wax ak moom di wax ak moom di ko wax ak moom di mocc ba mu xam ne kat yi xalaat bu rafet la mu nangu ko mu def liggéey bu am solo ci dajale alquranul karim ginnaaw bi Seydina Usmaan ñëw eggale ko kon junniy at ak yu tegal lu jege ñaari ñaari junniy at ak yu tegal su jullit ñi mënee am benn téere boo xam ne fi mu tàmbalee ak fa mu yem ñëpp a ko bokkule xelum doomu aadama muy Omar ibn al-Khattab moo ko def kon aw askan boo ca bokkee lépp lu koy doxal ci xalaat bu rafet da nga koo war a joxe buñ la ko laajee nga joxe ko buñ la ko laajee ca nga am man-manu joxe ko joxe ko te yàlla tax xam nga ne loolu tiyaaba du rëy la ba keroog saa di taxaw àdduna di tukki tiyaaba jooju bu ko yàlla bindalee Seydina Omar ak mboolem ñi jàkkoon ci liggéey bi kenn xamul lu muy toll loolu la nit war a def sunu sang bi Cheikhul Xadim radiallahu anhu moom it lépp lu masa loo xamante ne dogal boo xam ne boo ko jëlee day jeexital ci dundu nit ñi ñëpp daawu ko jël moom dong waaye da ci daa déglu mag mag bi mu nekkee njaareem 1912 13 yooyu tubaab bi dafa ñëw di sàkk ci moom ndi ndigal ngir samp fa ab l'école franco arabe sëriñ bi ci xam bu mu xam ni jàngale ak yar jeexit yi mën a am ci askan tax na jëlut dogal ba moom doom waaye daf leen a wax ni leen ñu ñëwoon di sàkk si ndigal ci délégation tubaab bi daf leen a booleeg ay mag ñu dem waxtaan ak ñoom ñu waxtaan waxtaan waxtaan ba déggoo ci kàddu ñu ne waaw nangu nañ ngeen samp fi l'école waaye ci ay charte daal di tegal charte biñ ñëwee wax sëriñ bi ni ko ñun de xalaat bii lañu am sëriñ ba da caa ànd ak ñoom loolu moo tax tubaab ba sampoon fa école franco arabe ñi miin kër gu mag njaareem foofu école franco murit nekk côté yooyu am na ñu jàpp ni foofu la woon am na ñu jàpp ci école Ibrahima Coy Ibrahima Coy la woon wala ca kaw waaye école bi njëkk foofu ci ndigalul sëriñ bi ginnaaw bi mu waxee mag ñi ñu waxtaan école boobu foofu lañ ko san xare xare xare bu njëkk bi première guerre mondiale bi tamit biñ bëggee kër yu mag yépp joxe ay nit biñ ñëwee sëriñ bi joxewut nit noonu rek waaye dafa wax mag ñi ñu waxtaan kon lépp loo xam ni dogal boo xam ne boo ko jëlee mu jeexital ci saw askan bala nga koo jël war nga koo bàyyi xel waxtaan te ñi ngi ci war a waxtaanal ba xel yu rafet yépp ak borom xam-xam yi ak borom yéene yu rafet yépp dëppoo ci ni lii lu jub la nga door ko amal noonu la njiit lu jub lu baax war a mel bañ a wóolu xalaatam bañ a wóolu dooleem loolu su amee rek mi ngi ci yoonu sànkute mi ngi ci yoonu it sànk ñim àndal dafa war di laaj xalaat waaye kuñ laaj xalaat yi da nga koo war a joxe te yàlla tax ak dëgg ak njariñu askan te bañ koo joxe di ca dàkk njariñu sa njariñu bopp wala njariñu kuréel gi nga bokk muy parti bi wala njariñu njariñu njiit li di dab bànneexam loolu wurta am joxe xalaat nag bu njëkk nam daa deme nit da ko daa def te yàlla tax ak njariñu askan waaye nag ci jamono jii ñu toll moom xalaat dañ koy jaay xalaat dañ koy jaay léeg-léeg da ngay laaj nit looy liggéeyee mu ne la man consultant la consultant maanaam sama xalaat dama koy jaay bu fekkee ne ci wàllu bâtiment la nga bëgg a tabax wala nga ñëw nga ñëw laaj ko ci xalaat mu jox la ko danga koy fay ca sax ci jamono ji da ngay gis ay nit ñoo xam ne dañ leen di jël di leen fay weer tudde leen ay conseiller di leen fay weer loolu nag jamono moo ko indi nekkuma ci ni war naa am ak wër ko am ak yooyu waaye maa ngi sikk sàkkati ni war naa mën a jeexital ci dëggub nit ndax su fekkee ne da nga ko yoreel weer di ko fay mu ciy dund di ci dundal njabootam am na nu muy demee nit kooku bu gëmut yàlla lool boo ko laajee xalaat day dàq sa bëgg-bëgg waaye ndax njariñ li nga ko amal te wolof day wax ku ëmb sa sànqal ëmb sa kers kon jamono ko indi waaye nag ragal naa ne mën naa jeexital ci xalaat yi léeg-léeg moo tax léeg-léeg ngeen di dégg ñu naan njiit li damaa yaakaar ne xamut li xew njiit li damaa yaakaar ne ñi ko wër dañ ko waxut dëgg ak yu mel noonu mooy dafay am léeg-léeg yoo xam ne mën naa gàllankoor nit ki ci mu wax dëgg bu dee ku gëm yàlla nag te doylu boo ko dee fay weer it boo ko laajee xalaat dana seet akulaay taala ak tiraayu bàmmeelam ak njariñu askan wi wax la boo jëfee baax na boo jëfut tamit sa mbiru bopp la waaye moom la ko waroon sa digg ak yow mooy wax ko te wax na ko te yàlla tax su dee nag ku doylu wut wala ku gëmut yàlla di topp ay njariñam rek ragal naa ni wax dëgg du ca yomb moo tax ma jàpp ne sax la gënoon a jub xalaat rek mooy ni ci lu dul ngay jël nit di ko fay weer nga xam ne ay weer mën naa jàll doo ko woo doo ko soxla doo ko laaj xalaat te weer wu dee nga fay ko ci alalu mbooloo mi yaakaar naa ne la gënoon a jub xalaat rek mooy saa boo ko wooyee laaj ko xalaatam mu ñëw da def waxtoon waxtaan ak yow jox la xalaatam nga fay ko lu tolloog loola mu def nga xam ne xeetu xeetu indemnité lay doon te bañ a doon xeetu fayooru weer ndax bu dee fayooru weer nit ki da ciy aju ajuwaay boo xamante ne am na nu muy demee duutu la wax dëgg te yow it bu la waxee lu juunoog sa bëgg-bëgg boo amut sago da nga mer te boo meree mën nga koo xañ sa dàq te gis nañ ci lu koy nuru ay nit ñu dàq ci seeni postu ndax dañoo am taxawaay ci menn mbir moo xam ne jubuwut kilifa moo tax loolu laaj xalaat lu baax la waaye yëpp seet ñu gën a xool bu baax ñu ngi ciy jamono nag mooy indi ay ay melokaanam di indi aw doxiinam waaye daal jullit bi moom wala nit ku nite rek ca am dignité ca gore xalaat bu koy joxe da ko war a jox joxe xool ci njariñul askan wi xool ci dëgg te yàlla tax kon loolu mooy lu jëm ci wàllu laaj xalaat moo xam jëmm ngay woo wala askan wi ñoo tànn ay nit ñi leen dem leen teewal ñu fa ñuy joxee xalaat te mooy ñi ñu tudde ay député ñoo ñëpp war na ñuy bàyyi wàlla xel loolu ndax bépp dogal buñ jël te seen xalaat waral ko te yéene ju rafet lalu ko woon ëllëg yàlla dana leen ko laaj alal biñ ci lekkit yàlla dana leen ko laaj ndax njublang ak jubati moo koy lal bu boobaa juróomeelu mbir mi mooy am yërmande ciw askan am yërmande ciw askan lu ama ama am solo la njiit dafay am yërmande yërmande joo xam ne nag waxuñ muy jalgati li tënk nit ñëpp muy sàtt réew mi waaye ci biir li ko yoon may mu tey doxal yërmande ci biir li ko yoon may mu ciy doxal yërmande xam nga yoon danaan la may naa la nangam am nga sañ-sañu nangam waaye néew la par force da nga def nangam su ko defee nga doxal yërmande ca amal ca jëfe sañ-sañ boobu ci misaal njiitu réew mi yàlla da koy wax yoon da ko may ci yenn njuumte yi nit ñi def ba mu jàpp leen ci charte yenn yi am na sañ-sañu jéggale loolu sañ-sañ la waaye yoon néew ko par force da nga ko def su ko defee defin wa nag da ca war a dugal yërmande ci anam boo xamante ni dana sàmmonteeg sàrt yi réew mi tëral ba noppi danañ ko jox ñu ko yeyoo te bañ ji xej ji ak seen loolu yërmande la nit juum tooñ la yoon may la nga war ko mën a topp ndax yoway njiit ca yoon aar na la nga mën koo topp nga jéggale ko am li ñu wax auteur yëkkati sa bopp weesu la sa bopp fayan ko loolu da la yonente bi alayhi salaatu wasalaam defoon ba yàlla di ko tagg naan ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghalida alqalbi lam faddu min hawlik faafu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr yow day ci ndimbalu yàlla ak yërmandeem ci nga nooye nepp ci kanam jullit ñi woyof yërëm leen ñaawantu leen waaye soo xatoon xol di fas kanam ñoom ñépp danañ dem bàyyi def ndegam nag mbir mi demeewut noonu ñoom ñépp déggal nañ la di la topp li des nag mooy ñett yi na nga leen jéggal seeni bang-bang na nga leen jéggulu seen boroom ci seeni njuum te seen digg ak seen boroom te na nga waxtaan ak ñoom ci lépp du leen soxal faafu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr njiit lu baax noonu lay def day jekku mën a fayu jéggale lay ay lay ak am digganteem ak ñoom bu koy jéggale te yàlla tax bu ñu juumee mu jéggalul leen seen boroom lépp lu muy def ci seen tur ngir seen njariñi mu laaj leen te seen xalaat faafu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr te bañ cee boole nag ak ñàkk fayda akub doye doo tax yonent yàlla di wax yonent bi ne ko fa ida azamta bu loolu lépp amee nag ba nga jël dogal ginnaaw bi nga jëlee matuwaay yi nga war yi nga war a jël yëpp ba natt ba jël dogal na nga ko na nga ko amal nag na nga ko def kilifa du jël dogal ginnaaw bi mu jëlee matuwaayam yëpp ba nga ko di ci delluwaat ginnaaw lu dul rek njuumte amoon ca jëleen wa waaye bu ci njuumte amul ca njariñul askan wi nekk ci waru ci woon a delluwaat ginnaaw ndax loolu dafay wàññi dafay wàññi gëdd gi ko nit ñiy dox loolu nag jor jotewut dara bon xol tàng xol jotewut ak dara tàng xol fa ida xasamta fa tawakkal ala allah inna allaha yuhibbu almutawakkilin boo jëlee sabab yépp ba tege ci yoon nag li ci des sukkandikul ci yàlla ca yaakaar ndimbal Seydina Omar bi mu nekkee njiital jullit ñi fal ay gouverneur ak i préfet ci waxin yóbbu leen ci diiwaan yi ci gox yi dafa bind dafa wax ak askan wi ci boppam bu doon ci jamono ji dañuy wax ne dafa def discours wax ak askan wi ci boppam ni leen ñii ma yabal ci yéen ñu nekk seen i njiit ci gox yi gox yi yooyu ngeen nekk na ngeen xam ne yëbaluma leen fi ngir ñu di leen néewal doole ak di leen nobbut wala ñu jël seen alal ci lu dul yoon dama leen a yabal ngir ñu di leen teete di leen jàngal di leen yee di leen dimbale képp koo xam ne ci yéen sama lenn ndaw def na ko lu dul noonu na fexe ba mbir mi egsi ci man daa di waat ci yàlla ni fa wallahi fa walladi bi nafsi fa walladi fa wallahi alladi nafsi bi yadihi idan la aqussannahu fii saa bu mbir mi egsee ci man ak ku mën a doon ci ndaw li sama ndaw li danaa ko lijjanti danaa delloo nit ki àqam nga xam ne moom bu masaa tànn njiit da koy jox yóbbal ci ni mu war a nekk ak askan wi waaye day wax ak askan wi tamit ci yée leen ci lan mooy seeni àq ndombal tànk bu mu kawee kawee kawe ba nga nangu tooñeel kuñ ci tooñ ci yéen dama fa mbaxana doone benn saa bu mbir mi egsee ci man danaa ko lijjanti bu jaree wàcce dana ko wàcce bu jaree teg ay daan dana ko teg ay daan loolu moom sax def na ko doomam ci boppam doomam bi ñu wax Abdurahman ibn Omar dafa nekkoon ci benn barab gouverneur ba fa nekkoon doom ji def na daal lu jar ñu àtte ko teg ko daan àtte nañ ko waaye àtte wuñ ko ci li ñuy wax audience publique dañ ko def huis clos dañ ko maanaam dañ ko atte koo xam ne ku ëpp su ku am sutura teg ko daan yi ko war a teg waaye bi ko Seydina Omar yégee dafa mera mera mer xam ni noonu ñu ko berele loxo doon gim doon doomam moo tax ñu def ko dafa bind bataaxal Omar ibn Aas ni ko loolu nga def de xam nga ni mos du sama jikko te du sama bëgg-bëgg kooku kenn la ci sa njaboot donte sama doom bu defee lu keneen di def ñuy daan keneen ci kanam nit ñi ñëpp teewe ko gis ko mën a nekk lu ñu war a bàyyi xel ëllëg yow nga beral ko loxo di ko àtte ci biirub néeg loolu du sama jikko du sama jëf te santaanewu ma daan ne ko yabal ko ca saasa na ñëw ci man te bu ko yabal yabal leen ku yabal doomu kilif na jël oto yi comme ñëpp na war comme ñëpp bi mu ñëwee da koo tegaat beneen daan daan ne ko yow yow yowee nangu ñu di la def li mu ne ko man de atte nañ ma teg nañ ma daan mu ne ko waaye lu tax ñu lay beral loxo kon moom da cay yamale woon ak njabootam loolu nag yërmande jooju njiit da ko war a am te yee aw askanam di leen yee ci lépp luy kii loolu mooy tax nit ñi am xel mu dal am kóolte ca barabu attewukaay ba ba kuñ ci def dara nga nga am cawarteeg benn su loolu amul rek cawarte gi sax du ci nekk ndax da nga naan du mujj fenn te loolu bu amee cim réew mi ngi ci yoonu yàqu juróom benneel mooy sàmm kàddu lu ama ama solo sàmm kàddu ci nit ku nekk rawatina ci njiit kàddu mooy doomu aadama ku woyofal sa kàddu jàppal ni amatoo Cheikh Abdullah dadaa wax ni radiallahu anhu ni nit boo dendalee waxi démbam ak jëfi tayam bu méngoo rek xamal ne as gor a ngoog nit a ngoog jàppal bu fekkee ne nit ngay wut jàpp waaye li xale yi di tudde léegi vaar dafa bari lool léegi maanaam kilifa ci menn mbir mu wax te ñaari wax yu wuute ni penkook sowu sore ci njiit loolu musiba la cim réew képp ku yor responsabilité cim réew bala ngaa wax danga ko war a xalaat xalaataat te boo demee ba sa xalaat jox la ni nii la nga wax ko nga bañ caa dellu ginnaaw ak lu la ca mën a fekk bu jaree nga perte sa ndomb ak tànk sax nañ ko perte waaye ñàkk nawloo nit weesuwut nga wax bëccëg ak ndara kam vidéo yi nekk ci nit ñi di ko gis xam ne nit kii la te ci barab bii la ko doon waxe ci waxtu wii ci jotaay sàngam nga xëy xëy bëgg a benn wax ci loolu ñàkk nawloo saw askan weesuwu ko sàmm kàddu nag du mbiru jullit rek waaye mbiru nit la nit moo war a am dignité sàmm kàddoom ak ku mën a doon du mbiru jullit rek waaye mbiru nit la jullit nag da caa rawati sàmm kàddu doon yoon wu gaaw ci dem aljana yoon wu gaaw ci dem aljana yàlla bi muy lim ci biir alquran ñiy dem aljana di fa dund teraanga yu rëy rëy da caa boole ñiy sàmm seen kàddu dafa tudd ñu bari ñëw ba wax ni walladina hum li amaanaatihim wa ahdihim raamu ñiy sàmm seen kan teg ca walladina hum bi shahaadatihim qaa'imuun ñi nga xam ne bu seede dëgg jotee ñu seede ko te yàlla tax ñoo ñit danañ am terangay alaaxira ci jeexital wax ji mu daan ne ulaaika fi jannaatil mukramoon kon yoonu àjjana ku ko bëgg a soobu mooy del sàmm sa kàddu yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne al muslimuuna inda shurutihim jullit ñi day askan wi day luñ dëppoo rek dañ koo war a sàmm ba mu des ñaar dëppoo ci mbir moo xam ne dafay daganal lu xaraam wala mu xaraamal lu dagan subti loolu amul rek luñ dëppoo rek dañ jàpp ni seen njariñ la te dañ ko war a sàmm kon njiit buy laaj kaddu kaddu mbooloo mi ba tax mu dige indi programme nit ña rafetlu ko rafet ca njort ca moom ba jox leen seen kàddu ngalawaay lu mën a xew kàddu googu na ko sax bu mbir nuru lu neex wala nga bëgg a yàgg ci barab bi ba tax nga koy teg ndax boo teggee sa kàddu yi da ngay am way mu ñaaw ca du tee barab bi da nga fa jógee ndax yow jiitu woo fa ay nit la fa jiitu tey nga nekk fa ëllëg nit dana la fa wut kon la cay des mooy gore ca ñàkk sàmm kàddu màndargam naa fekk la sax teg ci ndax yonente bi dafa wax ni ñetti mbir kum nekk ci moom màndargam naa fekk mi ngi ci moom bokk na ca wa ida waada axlaq bu waxee bu joxee kàddu du ko respecté daa di nag tëkku ci barab bi wuuteeg moom yàlla ci biir alquranul karim naa fekk yi bashir al munafiqina bi anna lahum adaban alima إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقت أنا من ووتة نافق من منتر تيالا ndax da koo tëkku ci anam yu wuute kon nag lépp luñ naan mandargam naafeq la ca naafeq nekk lii di mu jëm nit war na ko moytandiku njariñul àdduna wurta jàpp ngay wax muy teggee ko rawatale kilifa ndax nit ki lu nekkul wërsëgam du ca jot moo tax yonente bi di santaane ñuy rafetal wutiin bi ndax yàlla noppi na ci wërsëg yi la fay des mooy rafetal wutiin bi bu dee nguur nañ rafetal wutiin bi buñ ko amee nañ rafetal yoreen bi bu dee alal nañ rafetal wutiin bi buñ ko amee nañ rafetal sàmmeen bi ndax yàlla dafa noppi ci mbir yi ba noppi sabab yi rek lañuy topp kon loolu warees na koy bàyyi xel muy sàmmkat juróom-ñetteel bi mooy njiit dafa war a mën a def yaakaar ci askan bi mu jiite ndax xam nga léeg-léeg aw askan danañ toll koo xam ne dañuy ñàkk yaakaar ci seen ëllëg buñ fa tollee njiit li ci xereñam ak man-manam moo war a yeeyaat yeesalaat yaakaar ci seen ci ñoom ndax àdduna moom loolu ànd léeg-léeg ay jafe-jafe am ay crise ay nangam ba nit ñi commencé ñàkk yaakaar buñ amul njiit lu ko mate rek askan day suux moo tax saa bu xat-xat amee njiit da ko war daf ko war a mate yàlla sax day wax jaam yi ñu bañ a ñàkk yaakaar ci yërmande qul yaa ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah lu waay jubadi jubadi jubadi bumu tax mu ñàkk yaakaar ci yërmande yàlla inna allaha yaxfiru dunuba jamia innahu inna inna laa huwa gafurur rahim kon yee yaakaar ci askan wi dafa baax moo taxit nag askan wu nekk da ngay gis njiit yële yi gën a mën a saytu seen yaakaar ya mën a yee seen yaakaar mën leen a yaakaarloo ëllëg moom la ñu gën a jug moom la ñu gën a jug ndax yaakaar dafa am solo ci dund bu yaakaar jeexee dund duutu amati maanaam da ngay gis ay ci réew yenn yi nit di xaru ndax dafay egg foo xam ne amatul yaakaar ci dundam kooku bu amut ku ko gàttalu yeeyaat yaakaar ci moom rek boo wutut mën naa dem ba xar njiit nag kon dañuy séntu ci moom muy am man-manu yee yaakaar ci nit loolu nag ci ay taxawaayam lay doon ay kàddoom lay doon ay jëfam lay doon ak yëg-yëgam lay doon dañuy ñettali ni am na benn docteur boo xamante ni dafa amoon koo xam dafa amoon jafe-jafe biir biir bi daal day yóoxu rek mu dem ci docteur bi ni ko man de suma biir bi daal dafa may bëgg a jaaxal day yóoxu rek di guur-guuri rek docteur bi ni ko toogal bi mu toogee mu commencé di natt di xool di nangam di ko laaj noonu biir bi daal di guur docteur bi ne ko waaye yow mi dugal ci sa bopp yee xam nga wax jooju da ngay xam ne kon docteur bi dafa yokku jaaxle tax ki borom jàngoro ndax it lu lu lu mën a xew moom waru ko woon a gën a jaaxle nit bu jaaxle ba ñëw ci yow waroo koo waroo koo gën a jaaxle kon njiit it ba aw askan tollee ci xam xat-xat waru leen a gën a jaaxle waru leen a gën a ñàkk ñàkk ñàkk euh, kii su ko defee kon te loolu da ngay gis jamonoy covid bi jàngoro ji bi mu amee suñ njiit yi juruñ ñu waxuñoo ñun waxtaan wu jur yaakaar ci ñun waaye waxtaan xoqatal ak tiitaange la ngir gën a mën a layal seen dogal yi ñuy jël loolu nag lu doy waar la gis nga ko fa mujjoon dafa mujj nit ñëpp di ku kenn takkatul masque kenn ku ne di def lu ko sopp te la jaadu woon yaakaar naa ni mooy nga jur yaakaar ni leen lii kat am natt la bu ñëw ñii ak ñii la waaye nag yàlla jeexul nangam nañ jël ay matuwaay nii nang yu mel noonu su ko defee ñu ànd caa yow ngeen dox doxeen lu tudd waaye daanaka àddina bi ñu ci bari noonu lañ defoon bi may mujjee laata may expliqué bi mooy njiit dafa war a xam jafe-jafe yi aw askanam di dund bu tëjoo ci barabam rek wala ñi ko wër waxatuñ ko dëgg di ko gaw di dox digganteem ak askan wi duutu xamante askan wi ci yan jafe-jafe lay dund te bu boobaa dafay doon njiitul sapeur pompier njiitul sapeur pompier mooy lan mooy bala ngaa wax rek xew-xew am waaye doo gàttandu xew-xew xew-xew nag pour nga mën koo gàttandu faaw nga xam ko laataa xam li ko mën a waral su ko defee nga artu daal di koy lijjanti ak yeneen ak yeneen looloo tax ñi yu bare bari moo tax yenn njiiti jullit ñi nga xam ne Aboubacar ma sax moom amutoon ak kujje waaye moom moo ko sàkk bañ ko falee rek te saasa la wut daan ne fal nañ leen ma fal nañ ma ci yéen waaye gënuma leen su ma rafetalee dee leen ma dimbale su ma jàddee yoon dee leen ma delloo si kon moom bëgg na am ñu samp kuréelu kujje samp ndax loolu ndimbal la cim réew am ñoo xamante ne dañ day teg bët ci say di la diglu ci say wax da xool say jëf lu ci dut noonu ñu ne la du noonu loolu ndimbal la njiit lu baax ne da ko war a bëgg bu ko amee mu sàmm ko aar ne bu ko amul nag mu wut ko te bañ leen na sax bu mujj bi ñu may soññ ni ma waxtu li ci des bariwul kon yii ma wax yëpp bu fekkee ne am na yan jeexit lay indi jeexit yi bi ci njëkk mooy bu boobaa njiit li aw nitam aw askanam danañ ko bëgg danañ ko wormaal muy benn ñaareel ba danañ am kóolte ci moom ba lu mu wax danañ ko gëm duutuñ ci amati lu ñuy sikk sàkk lu mu leen digal danañ ko def lu mu leen tere danañ ko bàyyi te ci seen coobare lañ koy def dogal bu mu jël danañ ko nangu ndax dañoo am kóolte ci moom loolu dana ko ko jural leneen li mu koy jural mooy jëflante bi ci biir askan wi dafay gën a rafet gën a dëgër ndax jàmm rek moo fay am njiit li ak ñun jiite ñëpp jàmm moo fay am ak salaam te bu jàmm ak salaam amee ñaawteef yi dañu gën a néew su ñaawteef gënee néew yàlla gën ñoo musal ci ay musibaay ci bala ñeenteel bi mooy dafay mën a tax nit ñi ci seeni sañ-sañ mooy seeni liberté ñu mën koo dund ci li réew mi laaj li penc mi laaj ñu mën koo dund ci seen diine ak ci seen ci seen àdduna muy def seeni liggéey dund seen diine am taxawaay ci penc mi te jàmm rek di xew kenn du leen bundaxatal wala ñu am lu ñuy tiit bi ci def mooy ni dañuy mën a am yaakaar ni kon réew mi mi ngi ci yoon ngir yokkute am bu mujj bi nag bu fekkee ne ki koy def njiit li jullit la gëm ne àllaaxira danañ ko àtte bu melee melokaan yu baax yii di ko def te yàlla tax mën naa am yaakaar ci ne bu ëllëgee yàlla dana ko dugal aljana te aljana nag moo jiitu ci li ab jullit war a wut ndax yàlla sax ci biir alxuraan daf naan li leen yàlla jox moo xam xam-xam la wala kàttan la wala daraja la wala doole la lu mën doon na ngeen ci sakku teraangay àllaaxira waaye nag bu leen fàtte àdduna wabtaxi fi ma aataaka allahu daar al axira na jiitu ca lan koy joyal jëm na doon teraange alaxira ndax moo sax ci yemu jàng waaye nag bul fàtte àdduna ndax mooy tax nga mën fee nekk nekkeen wu mucc ayib muy tax nga mën a jaamu yàlla mi tax yàlla bind la kon ci tënk dama naan daal yoreen bu baax ciw askan day indi kaaraange akuk dal ci biir penc mi dafay taxit mbooloo mi am cawarte ci liggéey ak jaamu yàlla ci bépp ci ci lu dul ñuy tiit dafay taxit ñuy mën a am yaakaar ni seen jubluwaay danañ ci egg buñ bëggee am réew mu développé insha allah danañ ci egg ndax ak dal bu xase ba am nit ñi nangoo liggéey yeneente lu baax yàlla mën na leen di dimbale ñu am ak yokkute su loolu amul nag dañ naan siiwe ak dal am ndax bala nga naa naam da nga fiy nekk beneen bi ci des nag ci moom laay mujje mooy way wu rafet njiit lu nekk war naa xante woo am way wu rafet génne ci bunt bu mag bi génn siggi di dox di xool ñi mu jiite woon ca du rus loolu da ko war a bàyyi xel ndax lu amul tàmbali lu nekk lu dul dund ak suñu borom bi am na jeextal am na jeex am na àpp boo xam ne bu jotee dana jeex ak ci anam bu muy jeexal kon njiit lu nekk bu dul dara it war naa jéem a wa bàyyi woyu baax ci am réewam njabootam siggi waa réewam siggi ci kanam seeni nawle ñu am ak yokkute ci àdduna am jàmmi àdduna te buñ dee ay jullit mën a yaakaar jàmmi àllaaxira kon sëñ Abdou maa ngi déglu bu baax a baax su fekkee ne yekk naa ci waxtu yi du ëpp jërëjëf